Villiers waaye itam keneen koo xam ne ba tey rek mu ngi ci li nga xam te ne moom ci présidium bi maanaam ci kaw podium bi mu di ki nga xamante ne moom moo di le ministre Khady Diène Gaye le ministre Khady Diène gay moom mooy kon dal di def li nga xamante ne wala boog moom mooy ministre bi yore wàllum tàggat yaram di jawrin bi yor kon wàllum li nga xamante tàggat yaram moom Khady Diène Gueye kon moom ngeen itam gis ngeen taxawaay bi nga xamante ne am na ko tey ginnaaw bi ñu demee woon foofee xamante ne voilà kon l'arrivée de Ousmane Sonko sur scène l'arrivée président de Pastef Ousmane Sonko l'arrivée de la tête de nationale de Pastef

voilà l'ambiance. Vous voyez les petits photos. Est-ce que ça va hey, Est-ce que na torcida Ei, não torce ataque para cima. Não torce ataque, não torce ataque. Ei, não torce ataque, não torce ataque para desse carro. Não torce ataque. Mur! Mur! Mur! Nattar si tàkk nattar si tàkk. est-ce que pare nañu le président du parti PASTEF Ousmane Sonko. PASTEF fi ne kon fii la ñuy. PASTEF PASTEF. ñeneen ñi wàcc leen ñeneen ñi. PASTEF ñeneen ñi. PASTEF. saa tey leen ko si kaw ma xool tey leen voilà kon gis ngeen ko le président du parti Pasteur Ousmane Sonko na fi li nga ou bien sa forte délégation